kontaan nañu sàpp yàlla kontaan nañu jërëjëf kon ñu def ñaan. waaw jërëjëf kon ngeen taalal loxo sëñ bi def ñaan. Ah. jërëjëf ngeen gis loolu fi jotoon a am. ñu ngi tuub bu baax a baax waaye nag nii rek la mën a demee ndax baakaar la sëñ bi baakaar la sëñ bi. nii rek la mën a demee. ngeen gis ne sëriñ feeñal li nga xamante ne mooy ay xarbaa baax feeñal tamit li nga xam ne mooy xam-xam ak baatin ndax defe naa ne ku yokkul da ngaa waay da ngaa wàññi waaye alaaj coono mu lay sow ndeysaan tubaarkàlla dafa yokk ndax defe naa ne lu ne fàng kenn du ko jeex waaye defe naa ne soxna fii tubaarkàlla li nga xam ne moo nekk ci moom révélé na wax na lépp fi nga jaar nee na lépp looy jaay moo koy yàq nee na fépp lépp looy defit jinne bi moo koy yàq tubaarkàlla ndax defe naa ne même njaay sax boo ci duggee tubaarkàlla mu yàq sam njaay waaye ki ko détecté mooy alaaj Thierno Moulay Sow borom bu ñu fa yàqoon Touba Diallo nga yàlla suñu borom tubaarkàlla moo ko def nii mu mel tubaarkàlla ba fu mu jàkkaarloo ci ne tubaarkàlla nga daan kooku mooy alaaj Thierno Moulay Sow borom bu ñu fa yàqoon mu mel ne mbokk yi nag lii moo fi jotoon a am fii ci daaru laahi Djily Mbaye ci clinique bi nga xam ne tubaarkàlla a la alaaj Thierno Moulay Sow daal di ci fii ci waaye defe naa ne leneen a ngi nii tey dafa mel ne tey nag jinne yi dañoo ndax defe naa ne mi ngi tëj li nga xamante ne mooy semaine bi tey di samedi nga xam ne du bisi liggéeyam sax waaye recevoir ay gan ak teraanga yu ñu ko doon indil tubaar kàll moo waral lii nag tey mu mel ni jinne yi dañoo ñëw siyaar si ndax defe naa ne sëriñ bi wane la lu ne ci wàllu faj tubaar kàll waaw waaw waaw. yow la kan yow la kan ah la kan yow la kan yow la kan yow la kan yow la kan yow la kan yow la kan amoo tur yow lan nga he yow lan nga. yow la kan. yow lan nga. yow lan nga.